kon euh, man maa ngi tudd El Hadj Malick ñu gën ma xamee ci As Malick Mboup euh, di ki nga xam ni moom moo sos kuréel gi nga xam ni moom la ñu duppee parasol. parasol parasol xam nga boo parasol moom foo ko foo ko waxee rek xelu ñëpp mi ngi dem ci kiiraay foo tuddee parasol rek mi ngi dem ci kiiraay te ñu duppee ma Sidi Hadj Malick si. aw ma leen lu ma mën a liggéeyal Sidi Hadj Malick wala leen lu ma ko mën a defal ma ne xaaral kon ma jël li nga xam ni Sidi Hadj Malick moom la daan yore muy parasol parce que boo nee Sénégal foo nee borom parasol bi xel ñëpp dem ci Sidi Hadj si te Sidi Hadj si ba mu yoree parasol bi daan dow naaj wala doon dow taw wala daan dow poussière taxuloon mu ko yore parasol boobu mais da doon wane ne parasol boobu ci man sama dégg-dégg ak sama gis kiiraay la te yàlla rek moom mooy mooy yore kiiraay mu doon wane ni moom fu mu nekk rek mu ngi ànd ak suñu borom ma ni kon ma ni kon kooku war naa mën a jël symbole am tuddee ko suñu programme bi moo tax ñu jël parasol bi mais ñun kooku ci tekkinu tekkinu baatin lañ ko waxee mais bu dee si zaahir bi nii dañuy parasol c'est le programme d'assistance pour le rayonnement et la solidarité des orphelins veuves et enfants vulnérables loolu moo ko tax a jóg mooy logo bii nga seen nii ci buntu mm, bureau bi non liggéey bi fi ñu tool nag mooy defagum nañu au mois de mars passé le 17 mars passé defoon nañu benn li naan cérémonie de lancement officiel le maire Talla Sylla moo ko présidé woon yave aussi la délégation euh, du médiateur de la République, Serigne Diop, euh, euh, son épouse était venue euh, et moom ki nga xam ni vraiment à travers euh, tey lii nga ma accordeel maa ngi koy ñaanal suñu boroom xare ko àjjana moom wëli seen ndax moo représenté wu le médiateur de la République yal na suuf sedd ci koom il y aussi la délégation du ministre Aly ngay Ndiaye ñoom ñëpp ñëwoon nañu ci ci ci ci ci ci sunu cérémonie lancement boobu ci biir loolu nag aussi euh, ñuy remercier nag Talla Sylla xëy na am na lu bari loo xam ni diggoon nañu ko sax pour jàppale ñu xëy na ku ne xam na ni ci acte de la décentralisation l'acte trois bi mairie bi xëy na dooleem wàññeeku na mais Talla Sylla jot nañoo jot nañu fee may ay fournitures scolaires ñu yor ay xale orphelins yu ci bokk jox leen ay cahiers. tas ko taal ci seen biir mais loolu dafa doyul loolu ci si cérémonie lancement bi mu jógee ba pare si la boole noonu ak ay turc turc yooyu aussi jàppale suñu yenn xale yi parce que vingt enfants lan ma choisir loon ma yóbbu vingt enfants ñu jàppale leen après quelques mois après Talla Sylla woowaat ma bi muy jox école yi ay fourniture mu boole ci sunu structure muy geste boo xam ne dañ koy loué mais quand même quel que soit moom mi ngi jéem mu ngi jéem pour jàppale ñu mais comme ni ma la ko waxee léegi rek dooleem xaw na ci acte troit de la décentralisation mais ñu ngi koy remercier di ñaan aussi en passant suñu boroom defal ko wérgu yaram mais ci biir loolu euh, aussi fi nu toll nii xam nga œuvre sociale def ko au Sénégal dafa xaw a métti mais ñun amul ku ma ku ma adressé wul ay correspondant même le président de l' assemblée nationale du temps ñu créé programme bi ñoom ñëpp adressé naa leen ay correspondant ba ci même Youssou Ndour ki fii qui était le ministre du tourisme ñoom ñëpp adressé na mais amu ci kenn koo xam ni euh, jot nga ñoo répondre wala nga jéem a def jéego ni xaaral ma dem euh, euh, jàppale ñii jàppale xale yi wala jàppale asment li mu programme boobu pour ñu mën a pour mu mën ko lawal ba ci xale yi xale yi nag boo xoolee li gën a métti ci doomu aadama mooy nit kuy dund nga gestu doo gis sa papa wala nga gestu doo gis sa yaay mais ñoom ñi nekk ak seen doom yi di leen teral di def lu lu ne lu ne ñu defal ko seen doom yi tey suñu leen woowee ci kaay leen jàppale jirim yi rek dañ cee war a sawar ndax jirim Allah da ko tudd vingt fois ñaar fukki yoon ak ñett sunu borom da ko tudd ci alxuraan day xool lu mel ni yow moo asura tam xarit dañ la naan na nga jël sa loxo sax teg ko ci bopp jirim mais bureau bi tam xarit amul kenn ku fi dugg ne Asmalik am 1000 francs baa ngi yëkkati ko tas ko ci ay jirim ba pare. te bu doon tey tànn béer la wala ay ndaw rabin wala ay sabar kooku ci tuddee mu ñëw indi te lii diine la ñuy ñaan nag euh, nit ñi dégg sunu woote bi war a ñëw liggéeyal ci sunu borom ndax yàlla ci boppam dafa ni wala xadd karam naa ba ne aadama dafa ko bind teral ko mais jirim yi ci ñu suñu borom teral la ñu ba mais actuellement mën na ni dem nañ ba ci deux cent quatre-vingt-quatre et quelques am na orphelins yi veuve yi nag moom bu nu calculer sunu quota daal ñu ngi travailler à de cinq cent cinq cent adhérents. idée bi nag euh, ni ma dikkee mooy man nag euh, dama yàgg ñeewoonte jirim parce que man dama judd rek am fukki fan ak juróom-benn sama papa wàcc liggéey ci accident mais juddu nag ñu ñu nettali ma loolu ne accident bi tragique bi ma amee fukki at ak ñett nag bindoon naa benn taalif boo xam ne moom laa ko tuddee woon buy jirim buy jooy. jirim buy jooy eh, wii jur taalif boobu nga xam ne fukki at ak laa ko laa ko bindoon ñu demaat ba ci jamono may màgg nag sama xel fu ma gisee jirim moom dama la daan jàppale lu mu mësa am dama ko daan bokk ak kun naan jirim kun ni jirim rek man lu ma am dinaa ko bokk yow beneen événement bi beneen femme bu doon euh, mucc wat ci liggéey ma ni xoolal suñu borom xaarul sax xaarul sax xale bi nàmp ci weenu yaayam mu jël bakkanu yaayam ma ni yàlla daal lim naan may bind te lu ma neex ma def ko loolu mooy dëgg mayul sax jot xale bi mu nàmp ci weenu yaayam ma jékki-jékki toog ma ni mais xale bi dey war naa nemmee ko xam fu nu dëkk pour ëllëg ma mën koo taxawu veiller sur son calendrier vaccinal veiller sur son statut nutritionnel et pondéral mais jamono di dox neuf mois après bi may recensé xale boobu laa njëkk a bind ma ni ndey ndeysaan hasard amul hasard amul xale boobu laa njëkk a bind ci programme bi te yooyu mooy événement yoo xam ne yu ma marqué benn bi sama wéyjur wàcc liggéey ci accident bu tragique beneen bi nit ku doon mucc aussi wàcc liggéey mayul suñu sax jot jotul sax nàmpal doomam ma ne xoolal suñu borom ñaar yooyu loolu nag bokk na ci li gën a sabab euh, mbay ma ma taxawal lii non suñu perspective nag lii mooy par exemple xam nga li naan booy construire dangay ngay construire dans la durabilité ñun xëy na amaguñu doole amaguñu moyen Euh, le temps soit moyen ji ci jot a génn mi génne bi ñuy def cérémonie de lancement officiel bi ñu mel ni ay Aly Ngouille Ndiaye jàpp ci ay Serigne Diop médiateur de la République jàpp ci ay mbay Diouf Omar jong directeur IPAM ak euh, sunu benn naatango bu ñuy wax euh, Mamadou Dramé actuellement mooy secrétaire actuel secrétaire général bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ak Alioune Sarr bu Kajoor Jànkeen ak Fatou Kiné Fall directrice AMSA assurance ak Soxna Thiané. bu ay asxaabul yamin ñoo ñëpp jotoon nañu jàppale mais par exemple comme perspective ñu ngi préparer suñu deuxième édition mais deuxième édition bi bu ñu sañoon day wax dëgg yàlla li naan Marème fay sàll teg ci loxoom ndax li naan Marème fay sàll teg ci loxoom moom mooy mooy présidente ONG Servir le Sénégal te bi ñuy def cérémonie lancement bi moom lañ ko doon tuddee pour mu ñëw mais envoyé nañ ko deux correspondances yooyu yëpp lettre recommandée la mais gis ñu teewaayam. te lettre yooyu amul suite ñuy ñaan cérémonie bii nga xam ni moom la ñuy bëgg a muy deuxième édition bi correspondance bi nanu fexe ba mu jàll ba mu jot ko mu mën a teew parce que xale yi dañu bokk ci li naan servir le Sénégal parce que c'est des citoyens sénégalais et qui constitueront qui constitueront l'avenir du Sénégal kon war nañ leen jàpp moom daal vraiment euh, bind naa lettre ba pare mais dañ ko dama dama doon xaar lu ni mel xëy na war nañ ko damay parce que pour yónnee waa lettre bi soit dama ni dama war a jaar gouvernance def ko voie administrative wala ma delluwaat poste defoo da ko recommandé ba pare téyewaale récépissé bi di xool loolu daal parce que jàppaguñu date mais moom selon son agenda moom moo ñuy fixeel moo ñuy fixeel dal dal mais loolu moom perspective la yoo xam ne ñi ngi ci taxaw daal sama kàddu mu jógi mooy euh, di d'abord balam di naan ah, béy bu lekk alom na ko gërëm a cooy man dama lay gërëm yow Babacar di la gërëm à travers station bi ngeen mettre sur di la gërëm à travers chaîne bii ngeen mettre sur di ñaan sunu borom chaîne yi muy yëkkati na ko na ci boole. na ko ci boole ba yéen ñi nga xam ni yéen a ci yëngatu mu impact bi ngeen gis ko loolu moom laay njëkk ba pare tey sama dernier appel nag mooy maa ngi woo nit ñi xale bee di jaar ci programme bi la yëpp jërim la maa ngi woo nit ñi. ñu jàpp ñu ñu jàppale ñu ci nit ñuy jàppale ci jirim yi la jot mais Marème Faye Sall moom na ko leer ni li ñuy organise deuxième élection moom lañ ko tuddee ak Adja Ngone Tall Ngone Adja ak Ndey Penda Tall bu Idriss Seck ñoom lañ koy tuddee ñoom ñëpp lañu bëgg nag bu boobaa ñu ñëw waaw incha allah jërëjëf ba